moom la Sophie di digle pour ngeen koy toggee euh, seen i togg ci biir kër gi donc Sophie euh, jën yi da nga koy dugal fuur da koy dugal fuur. waaw euh, mu ànd ak diwlin ñaan yi. waaw Baye Cheikh comme ni ñu ko waxee rek diwlin ñaan yi dafa nekk diwlin boo xam ne moo baax suñu wér-gu-yaram ndax gerte gi ñu ko defaree fii ci Sénégal lañu ko bayee moo tax ñun moom la ñuy utiliser fii suñu biir waañ déjà comme ni nga ko gisee nii nag maa ngi commencé woon li nga xam ne mooy préparation wu bi déjà nii jën yi jotoon naa ko piqué ak jinjeer persil euh, pois euh, piment vert yooyu yëpp ma mélangé ko jotoon ko def ci four bi en attendant fi mu ne nii damay ñëw rek. Euh, dagg tuuti persil persil coriandre pour defar benn fond boo xamante ne nii mooy fond bi nga xam ni moom la ñuy def ci kanam pour poisson bi déjà nii gis nga persil bi dama koy dagg grossièrement jarul muy sew de trop parce que ci four bi lay dem damay ñëw rek sotti ko ci li nga xam ni moom laa defar fii fii nag dama jël cinq tomates tomate yi nag moom laa jël euh, def ko sous forme de purée mooy maanaam dañu ko jàmb ba am benn fond nii moom laa def ni damay ñëw rek moom tamit ma def ci tuuti kari def ci tuuti tamit euh, jinjeer parce que poisson bi jinjeer bi dafay relever goût bi ak ail bi aussi daf ci am solo ma def ci tamit euh, ail en poudre moom ba mu doy def ci poivre gis nga ni lépp ci fond bi parce que moo ñuy permettre euh, poisson bi gën a am goût def poivre ñu ñëw aussi def tuuti herbe herbe de Provence daal di jël tuuti sauce soja moom dafay relever goût poisson bi moom ñu def ci tuuti rek voilà su ma paree aussi ma rajouté ci li nga xam ne mooy euh, piment vert am naa fi tamit oignon yoo xam ne dama ko dagg en rondelle pomme de terre yoo xam ne aussi dama ko dagg en rondelle moom tamit ci kanam laa koy jël def ko ci li nga xam ne mooy euh, ci poisson bi parce que poisson bi dugal naa ko en attendant muy ñor parce que légumes yi mooy ñëw en dernier lieu gis nga déjà ni kaani bi moom tamit bu ko daggee nii ba pare damay ñëw sotti ko fi su ma paree nag je mélange le tout fii nag am na ay herbe de Provence soja gingembre am na aussi li nga xam ni mooy. Euh, kari bi gis nga nii rek mu nekk benn fond boo xamante ne nii dafay neexal euh, poisson bi déjà lii rek mën na la servir de sauce mais dañ koy arrosé ci kanam ci li nga xam ne mooy euh, euh, poisson bi déjà nii ma jël li nga xam ne mooy sama poivron rouge moom tamit dagg ko en rondelle voilà gis nga nii jarul muy sew nañ ko def ay yu yu mag voilà moom it dafay jox couleur ak gou li nga xam ne mooy poisson bi voilà gis nga ni am nañu ingrédients yi yëpp mën naa ñëw nag génne li nga xam ne mooy poisson bi ci four bi yokk ci li ñu ciy def suñu paree ñu delloo waat ko gis nga déjà nii moom commencé woon na di ñor. gis nga ni mën nañu ko teg ni gis nga dañu ko comme que ñun cuisine rapide la ñuy def moo tax dañu ko dugal à l'avance mu commencé ñor euh, fi mu ne nii nag mën naa ñëw def ci li nga xam ni mooy pomme de terre bi. ci kaw nga xam ni pomme de terre yi dafay ànd ñoraale ak moom déjà nii ma ñëw aussi jël li nga xam ni mooy pois euh, oignon yi nga xam ni moom it dama ko dagg en rondelle gis nga rondelle yu mag laa ko def damay ñëw rek moom tamit teg ko ci kaw poison bi su ma paree fii am naa macédoine de légumes am naa carotte navet ak tuuti haricot vert damay ñëw moom tamit rek sotti ko ci li nga xam ni mooy kaw poison bi yëpp nga xam ne après ça va am na poivron rouge bi ma doon dagg sànq moom it dama ko ci sànni nii rek voilà gis nga lii déjà rek ça donne envie de manger te ñoragul euh, su ko defee nag gis nga ni lii mooy fond bi nga xam ni moom laa defar sànq mooy fond bi am tomate am euh, ay en poudre ak mélange d'épices yi ma def damay ñëw rek sotti ko ci nii voilà sotti ko ci kaw poisson bi ak euh, légumes yi voilà gis nga fond bi nag dafay ñor àndaale ak li nga xam ne mooy euh, légumes yi suñu paree nag ñu jël huile ñaari bi nga xamante ne nii moo ñuy accompagner ci biir waañ bi gis nga nii tey dosette bi laa utiliser dosette bi nag damay jël rek c'est facile laa utiliser damay bënn rek ñëw rek gis nga nii du la andil benn problème su pour def ko ci nànk nii rek ci kaw voilà mu bañ a bari nga xam ni mooy ñoral légumes yéeg yooyu baax ci suñu wérgu yaram macha allah voilà gis nga nii rek suñu paree nag poisson bi comme que def nañ ko nii ba pare euh, boo amee citron mën nga laal tuuti citron ci kaw wala un peu de vinaigre euh, à défaut mën nga jël tam tuuti sauce soja bi daal di ko ci def nii tuuti rek comme ni may def nii relever tuuti goût bi suñu paree aussi ñu jël un peu de sel daal di ko ci euh, def nii tuuti rek voilà. voilà gis nga nag nii suñu ko defee nii ba pare comme te poisson bi demoon na ba commencé ñor presque poisson bi ñor na léegi dañ koy dugal ci fuur bi rek le temps que muy ànd ak li nga xam ne mooy oignon bi ak pomme de terre bi ak poivron vert bi nga xam ne moom laa def ci kaw ci kanam tuuti buñ ko dugalee ci four bi à peu près à 20 minutes mu daal di ñor ñu génne dressé li nga xamante ne mooy suñu plat du jour tey ci kanam nag euh, ñu jàll ci dégustation bi Baye Cheikh en quelques minutes li nga ah. xamante ni moom nga ñuy toggal muy ay poisson euh, euh, fourré euh, ak Sophie